nuyu baax a baax di leen ziar suñu bokki internet yi ñu ngi toog ak Lamine coach Lamine pour waxtaan ak moom ci combat bi ñu amul démb arène nationale diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène naka la waajalee mbërëm euh, Lamine maa ngi nuyu di ziar waaw Xaadim maa ngi nuyu du nuyu monde entier du nuyu internet yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maa ngi ñaanal ñëpp jàmm waa démb de gis nga li yàlla dogal li olof ñaa naan jaam ak pexe yàlla ak dogalam ñëw nañ ma indi woon ñaari polo Diaw 2 ak Sa jawdo suñu borom defal ko ndam Sa ñàkk. Mhm. da ngeen amoon bés bu mag sa diggante ak Eumeu Sène euh, noo noo waajal noo préparé Sa Thiès ci côté entraînement yi ci côté contact. waaw Sa Thiès préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé ndax il pare que man soo xoolee Sa def na hivernal la moog booy yi ñoom ñëpp ba tollu si tollu tàmbalee contact si lañ tàmbalee ñëw mais wax dëgg yàlla bi mu ñëwee tamit gisoon naa ci moom loo xam ne neexu ma mais teewul si diggante combat bi diiraa bi lépp xaju fi mais am na lu ma si dindi ci mhm, volume bi mu yoroon nga xam ne li ma gis bëri na mais teewul si diggante avant combat bi wax dëgg yàlla am na lu bari loo xam ne dindi naa ko si quoi. si côté entraînement. Mhm, séance nan la doon demee par jour. non moom su xëyaan daan dem musculation si gii su paree def boxe mais ngoon gi la daan ñëw écrit ba. waaw non soo xoolee Tivaouane Peulh lañ daan compter presque contacté presque ak géeju géejawaay fii. tey bi nga déggee ne combat Eumeu Sène euh, Sa taxaw na sa xel ci lan la njëkk a dem. dama koy daan la sama xel njëkk dem. dama koy daan waaw ndax Eumeu Sène mbër moo xam ne maa ngi koy félicité waale au passage di ko ñaanal ndam di yàlla na ko jik ndax moom champion la ndax li ma waxoon rek mooy def na fi li mu war a def lépp na ñëw bàyyi mbooy bi jàll mais tamit Eumeu Sène ku bëggoon làmb ji la te man bëgg gi mu ko bëgg bettu woon. ndax xam naa ne tey jii ku sàggane woon combat bi da xaarul woon ba le ba démb la woon kañ le 5 le 5 xamoon naan suñ dugg si stade bi nañ xam ne am nañ combat loolu nag lu ma sóoroon la lu ma bàyyi woon xel la. waaw mais seen fonkee combat bettu la. ah seen fonkee combat bi ko préparé euh, tey combat bi jël ko amee est-ce que loolu bettu la. non bettu ma bettu ma wax dëgg yàlla bettu ma bettu ma benn yoon moom bettu ma benn yoon benn yoon bettu ma ko Sa Thiès fonk na ko ñaanlu na dem na si ay mbokkam dugg na fu ne yëkkati na alalam yëpp def ko si. ak amaana yeneen ak yeneen yoo xam ne mënoo koo wax ndax Sa Thiès combat bi da ko préparé durement durement jàppale bi ak yu bëree bëri manquement yu bëri Sa da ko am si combat bi yu waaw si combat bi kay eh, ji man bi ma expliqué rek dama ne ko garaaw yàlla baax na yow nekk ci rek fii moom kenn mënul kenn amul yàlla rek mooy dogal ñun nañ ñaan yàlla defal ñu li gën si ñun rek te man li gënoon si ñun jàpp naa ne yàlla lii la dogal nag mais man dam laa gënoon bëgg nag. manquement financièrement la wala wala ci ban côté la. waaw xam nga benn jour liiru jaan wax na ko ñu laaj ma ko mais man du ma mën a foofu dama yem si côté sport bi rek. si côté sport bi laa mënoon a yem fa laa mënoon a mais manquement làmb dafa yaatu dafa yaatu te am na si ay manquement yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne ni man dégg naa source yi mais du ma si mën a sori ndax man dama jël sama bopp rek limité ko si côté entraînement yi si côté sport bi laa focus ko yem fa. Mhm. mais mbir mu mel ni Sa Thiès ak encadrement bi mu am ak euh, fi mu bokk ci ci làmb muy Guédiawaye est-ce que tey di am problème manquement yooyu loolu loolu jaadu na. waaw xam nga rek xam nga yooyu yëpp tamit doo si mën a son ndax nit ku nekk dangay dem diw doo jàppale diw mën a la nii nii ndax ndax tout le yi ñoo si bari quoi ba yow après dangay ngay mal positionné wu pour dugg si wala pour nga wax si di juum wala def da ngay mujjee maanu rek yem si li nga war a yem mais nañ xam ni géejawaay benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nañ jàppalante yéenante jàmm ñoom ñëpp xam ne ñoom ñoo far quoi ndax ñoom ñoom ñoom mbëri ñoom ñoo mën a mayante li li samay waxi démb mooy sama waxi tey ñoom ñoo mën a jariñante quoi nañ fexe xool nuñ bokkee nday bokk baay jàppalante waaw mooy loolu. Mhm. tey combat Sa Thiès Eumeu dafa taxaw ñu def face à face euh, ñu bëri ne d'accord ci Sa Thiès ni mu abordé comme ni mu abordé face à ndax da ko jox respect de est que gis nga seetlu nga loolu tamit est-ce que d'accord nga ci. waaw xam nga man Sa Thiès man ni déggante nañ benn jour téléphone ma ne ko carrément promoteur bi dana fay xaalis lamb dafa soxla ku ko jaay nii nga ko abordé nii baax na mais soo demee ba dernier signature tàkkal si kawam yëngal yow yaay xale. yaa war a yëngal wax naag waa provoqué ko wax loo ko nga xool fu mu toll mu ne ma waaw noonu laay def nii ak nii nii ñu expliqué mu ne waaw mais teew deful loolu nga ngir lan Sadio da di nit koo xam ne nit ku jox respect ñëpp la nit ku jox cër ñëpp la nit ku nekk ak nam mel rek. dafa am na face à face daan daan wax ci face à face doon provoqué adversaire bi. Hmm. waaw xam nga loolu mook ay moroomam la woon moom ay moroom mais dafa jël Eumeu seen sédd ko cër trop trop trop te su doon man du ma ko sédd cër ndax Eumeu Sène mii bukki la. ndax démb def nañu yëfi bukki dëgg. Mhm. am naa lu ma am naa lu ma metti nag. ci côté si am na foo ma fekk nii si géej gi dama lay tegtal a tegtal a tegtal ba soo dama génn sama kër sax ñëw toog si géej ndax yàlla suñu borom mooy dogal mais man defet ba bëgguma ko quoi bëgguma ko ndax Eumeu Sène dafa toog ay at di ñu ravager géejawaay Sa Thiès jël ko ma gëm ni Sa da koy daan man dama gëmoon ni Sa da koy daan ba tax na am na yu bëri yoo xam gis nga ma sax si digg géew bi may wax ak Eumeu Sène may wax ak waxante yéen parce que waayam bi moo ñëw am ay affaires yu muy xëpp ma bëmax ko ma bëma xaar waaj bëma ko waa ji wax ba saaga ma sax ma ne ma fayu bi ma ko bëmaxee Eumeu Sène ñëw ne yow sama gaayan nga man ko noo gaayanoo ma ak yow yow li ma metti woon at yi yëpp tey lay jeex ndax danga maa yàgg a def lu ma metti at yi yëpp jooyloo ma si stade kon tey lay jeex Sa dina la teg metti tey dina la duma dina la daan mun ne ma yow ñoo far ma ne ko am faruma ak yow tant que bis bi jeexul wan ko gin si laa ko sànnee loxo noonu su image sax wan ko ginnaaw. Mhm. waaw loolu la ñu waxante foofu maa ngi ëmb seen. loo mujjee mujjee waxante ak bi ngeen defee seen dernière séance d'entraînement ba pare ba ngeen ba nga toog ngeen li ma ko doon wax rek la ko ñëpp di wax ndax man moom li ma ko gën a wax mooy lenn Eumeu Sène lu mënti xew moytul ne mën na laa songu si benn lam bëri woon a gir mooy nga xeex ak moom mu jiwaloog yow Eumeu seen ñaar sa vitesse la bëgg a bëre ndax Eumeu Sène mbër la moo xam ne la ma doon wax jumbax bi ba si suuf kenn du si bëreeg moom ndax mbëru xaarkat mbëru tànk la gaa day jëli ji rek mais tànk la gën a mën ñaareel bi si des mooy da nga war a dal Eumeu Sène du arbitre combat bi saaf danga nga war a war a maturité du arbitre day siffler rek nga dal si kawam su dee benn une minute sax wala benn 30 secondes sax danga ko war a léew doo ko dem heure booy dem lu ko war a bett la du loo ko war a téléphoné wax naa ko loolu lépp ne tamit mooy li ma wax rek xëy na moom xaw ma dafa bëre xelam ndax te damaa jàpp tamit la mu doon wax signature yi la indi muy combat bi maa koy bëre du ma ci teg benn pression jarul kenn di conseil démb lu munti xew Sa Thiès waru woon daanu yàlla nag mooy dogal. mais bu yàgg est-ce Sa jaaxal na ko parce que looloo yàq bëreem ndax xamul loolu Sa mu ngi mës a def loolu si làmb dem round d'observation demaat demaat ay trois Sa Thiès démb combat bi que amul ay plus de 7 minutes. mën na cinq minutes waaw loolu loolu Sathiès mosu ko woon xam te wax dëgg yàlla man xalaatuma woon loolu si moom quoi mais tamit mënoo koo gëtëng mënoo koo gëtëng mënoo ko wax dara ndax dem na ñaari yoon ardo di signaler baaraam bi benn dagg-dagg bu mu fa gaañu gaañu bu mu fa gaañu woon yooyu yëpp te teewul damay waxuma ba bi mu gaañoo ñëw naa ne ko carrément ni nga ko entamé baax na mais dalal si kaw waaj loolu nga ko bu bari bi ñu ko entamé doy na bi mu demee ardo ñëwaat rek defar loxoom bi ñu yore boobu dafa waroon agressé Eumeu Sène xeex ak moom bëreeg moom bu jeex mais li ma gën a comprendre mooy bi mu ko fàqee ba Eumeu Sène wàcc Sa Thiès waru ko foofu Sa Thiès moo ko maat ab siggi di cabaxal cabaxal boobu amu fa woon yoon boobu fi mu fëqee foofu Eumeu Sène waroon na ko fàq xëcc ko gën ko xëcc Eumeu Sène dina kat ab ndax benn loxo baa si kaw loxo boobu su wàccoon rek day kat appi par force wala mu wër ko ndoom ba def dafa bàyyi dóor dafa bàyyi di dóor ba pare bàyyiwaat ko mu jóg mais ni ma xeexee est-ce que jaar na yoon Sa hmm? na yoon. waa xeex bi Sa noonu lay xeexee tout le temps xam nga tey ji làmb mooy li ma wax rek sooy daan duñ gis faay yi mais sooy daanu tout le temps dañuy faay day day feeñ mais li ma koy wax rek mooy leen mbir yi na si gën a nekkaat xam ne làmb léegi affaire de professionnel la na ko gën a jéem a xool nu mu yokkaatee xam-xamam yokk léppam quoi. bi bi ñu xeexee Eumeu Sène jàpp ko ba takk ko foofu ba heure la Sa Thiès bi mu ko takkee waru woon fa nekk di dóor. foofu dafa waroon jéem a rocceeku jéem a rasu pour génn si action boobu ndax Eumeu Sène mbëru wet la te day bëree kaw ndax mu ngi la ceinture ceinture ko si ay diine Eumeu Sène ko ceinture si ndig taf ko pied droit la ak pied gauche taf ko si maninam si côté bi nga xam ne moom la mëne foofu Sa Thiès waru woon rocc loxo di dóor waru woon rocc dóor foofu rasu rek la waroon mën a def ndax dèjà fi mu ko képp munoo botti munoo boot mais su ko puusoon rasu am na puissance boobu su fa jéemoon rasu dëgg-dëgg su defoon xelam si damay rëcc si lii comme naa ni loolu du ko daan. da ciy rëcc lu foofu jéemul a jéem a rasu pour génn ci action boobu mais dafa dafa fekk si Eumeu Sène bàyyi ko mu. bàyyi ko mu téye waaw bàyyi ko di dóor moom laa lay wax nii bàyyi ko di dóor boobu mu doon dóor moo dul yoon foofu làmb ji am na fu mu doon toll rasu ba génn si rek balaa ngaa xeex la waroon def ndax soo xoolee Eumeu Sène boobu def na si puissance am yëpp def na demi njëkk na koo biij demu mu dolli wax ko ba toog moo tax soo xoolee sa gis nga jélle bi ni mu xaw a def ñu ngi naan Eumeu Sène a njëkk a doog ñu ngi naan Sa yëpp mais doy na waar daal dóor bi daal laa àndul moom waaw ànduma si. am na ñu ne mënoon na mënoon na bu ko Eumeu Sène takkee dafa heure taxaw mënoon na sëgg pour jéem a mboot ñu foofu ñu ñu parce que fi ko takk la moo tax fi mu koo takk ba pare ko weñ bi di ko mel ni koy jaara def espèce su 16 mbëri xam nañ loolu. waaw mais ba mu njëkkee tenté demul est pour déclencher mboot foofu. non non parce ko takk moo baax fi ko takk moo baax te da koo serré pied gauche ak pied droit kii da koo serré si côté foram la ko serré Sa Thiès na koo mbot mbotu tàqalikoo wala mu jéem a forcer pour rasu pour génn mais mbotu tàqalikoo bi mënut a nekk parce que Sa jàppul fenn te Eumeu seen du mu ñuy botti soo ko botti woon rek bu dee koo bàyyi mu surux. Mhm. moo tax bottiwul foofu. waaw ah, moo tax loxo bi duggul de seetaanaatal image duggul boobu Sa jàpp soo xoolee saalis mu ngi mu nga féey sa kaw. boobu soo xoolee Sa Thiès Eumeu Sène yóbbu na ko yëpp mais puissance am ak résistance am sax moo ko téye mais loolu lay li ñu fay yegg mbër daanuwul bariwul de. Mhm. waaw fi mu koy yegg moo sori nag. xam nga bi simee ko ñun ñaar Eumeu moo gën a moo gën nekk ci forme que Sa Thiès. waaw tey ji xam nga li may wax rek Eumeu Sène tey ji mbër la moo xam ne mos sa simee ñu ne liggéeyu ndax day am yoo xam ne nii bind la si nit lu mu ci def rek mu dolleeku wax dëgg yàlla macha allah maa ngi ko liggéey na ku ko gis xam ne dañ na ay coono Sa tamit liggéey na dañ na ay coono mais xëy na yaram yi ñoo bokkul. yaram yi ñoo bokkul mhm. am na ñu ne dafa dute ci forme Eumeu Sène moo waral mu bëree gisuma loolu de gisuma loolu man xëy na nit ñi ñoo jàpp loolu mais man jàppuma loolu ah ndax yaakaar naa ne Reug Reug moo ëppoon doole moo gënoon diis moo gën a musculé te teewul Sa da ko attaqué accéléré ko xeex ak moom c'est que défaite su ñëwee xaadim rek ñëw na lu ne di nga ko dégg mais nañ encouragé waat Sa Thiès te xam ne xale la làmbang ci kanamam dina metti torop nag dina metti torop si moom mais na gën a takkaat ndiggam rek takkaat daal yi liggéey quoi yàlla baax na. léegi sàcc sa bis yu bis yi des fois daf am problème la moo waral problème boobu bis yu mag yëpp boo xoolee yi ci bëri daf ko ñàkk lu waral loolu. waa loolu day am léeg-léeg nit ku nekk dangay ngay toll moment boobu lee di nga toll moment yoo xam ne mooy su yàlla nee waaw yàlla waaw su nee déedéet déedéet rek nan nga xam ne yàlla moo àndagul ak moom si bis yu mag yi rek ak combat capital yi da ngay xool Youssou Ndour Père Balla ñaata combat capital la ñàkk keroog xoolal contre Talfa da koo ñëw réussir ko te ñaata examen la génn réussir ko parce que yàlla moo ñëw tamit mooy loolu na liggéeyaat rek na liggéeyaat rek làmbang si kanamam quoi ndax ki ko daan champion la dafa def da rek roi des arènes daan fi ñëpp daan fi ñëpp def fi exploit yu doy waar daan magam daan ay lag de guerre daan ay mbër yu ës yu të kon su ko daanee moom na xam ne xale la rek waaw ndax Eumeu seen démb da koo jaay expérience ba daan ko rek da koo dugal si piège am rek da koo dugal si piège am rek. taxaw déglu ko rek. waaw da koo dugal si piège am rek da koo dugal si piège am. Mhm. mais est ce que waroon na waroon xaar ba Eumeu di ko njëkk a song est ce que moom nekkul moom waroon njëkk a jàpp lépp mooy li may wax rek xam nga wax naa la ko si commencement bi nee naa Sa ma jàppoon mooy su léewtoo 30 secondes day dal si kaw waaj Sa Thiès lépp lu fa waroon am moom moo ko waroon def comme la moo waxoon Youssou Ndour contre Talfa yaa war a njëkk a dóor yaa war a song yaa war a jàpp te jàppoo yaa war a bëre bëre bi gaaw mais defet su ñëwee rek ñëw na ak booy bi tamit xëy na wax nañ ko li ñu ko war a wax yëpp xëy na mu ñëw si digg yooyu indi leneen tamit doo comprendre quoi. Mhm. Mhm. est-ce que consignes yi ko yéen ko joxoon rek gis ngeen respecté na ko wala Sa Thiès non na consignes yi wax dëgg yàlla respecté na ko mais xaar bi moo yàgg. xaar bi moo yàgg moo dul woon yoon. xaar bi moo yàgg xaar bi moo yàgg Sa Thiès kutoo kut dafa waroon jeexal làmb ji mu jeex dal si kaw Eumeu seen jaxase ko mu jeex moo xam après lu munti xew su daanoo ñu xam ni kat consigne la bëree su boobaa ñun dañuy génn assumer suñuy responsabilité waaw. lan moo nekk réaction bi après après défaite bi. non réaction wul dara ku gëm yàlla la nag ku gëm yàlla la deful dara ba léegi jiital nañ ko dem na ñibbi na ñibbi na wax dëgg yàlla mais ba léegi gisewaatuñ ndax démb néew naa golf toog foofu tuuti ñu toog si buntu kër gi foofu di waxtaan man Youssou Ndour si Omar Fall Mouma ak Balla gay 2 ak Sambala bi taxaw nañ noonu si ginnaaw comme ni ñu ñoon di waxtaan. ba heure yu ñibbi jot rek ñu ñibbi man ba ma yeewoo ni sax ñëpp a ma sonal journaliste yi sonal moo tax ma ñëw daw dugg toog si géej gi nii yow moom da di sama sëriñ di sama lépp ngay nit ku baax te wax dëgg yàlla léeg tamit nit ku nekk nit la tey ji internet yëpp mën naan tout le temps dañ may jël dañ te yow la plupart su farata amee rek nga may jël kon yoon la ma wuyu la yow tegtal mais amul keneen doo ma déggaat fii ak suba wala ginnaaw suba nga gis ma si benn internet moo loolu moom maa la ko parce que yow ku respecté sa liggéey nga ku bëgg sa liggéey nga moo tax ñu koy def te gis nañ sacrifice yi ngay def pour waxtaanee kii te doo ñëw di jaxase wala di dugg si loo war te dugg wala dara moo tax may ñëw soo ma wooyee yow moom faree ma tegtal la soo paree fee laay dem tëddiwaat fa ma tëddoon. waaw tamit daal ah, ñuy def fa laay tëdd balaa ma fay jugee kay 6 heures wala 5 heures baa ma rek. dafa def kii pression bi defe jàppale. waaw naa lu ma métti xaadim am naa lu ma métti mais tamit sport la quoi c'est la loi ah, tamit. waaw sport la c'est la loi am naa lu ma métti trop. mais c'est la loi maa ngi ñaan rek yàlla na fi yem di ñaanal caatu Daouda Fall ak loo Karim mi nga xam seen combat ñoom ñoo si topp yàlla sunu borom defal leen ndam si barke Seydina Mohamed. Balla Gaye la ma nekk impression ci combat bi bi mu jeexee bi ngeen moom ba léegi dafa waxtaan si leneen nag dañoo waxtaan nañ si leneen toog ndax gëj nañoo toog maak moom mais démb toog nañ lu ma deux heures de ñu ngi doon waxtaan di def loolu yëpp parce que maa ngi moom comme li ma wax jot gi amatul gise bi yombatul waxtaan nañ waaw yaaw ma gën a xam. Mhm, waxtaan nañ bu baax moom it mu am déception bu métti am lu ko métti sax ooy non am na déception bu ko métti yàlla rek moo tax may wax ndax man du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu amul mais am na lu ko métti sax moom démb moom am na lu ko métti mhm, am na lu ko métti sax démb ama mhm. seen ñëw daan Balla daan géej daan daan Sa Thiès daan Lac de Guiers loolu koy dundee métti métti déggoo li ma la wax métti fi lu ma la wax lu su ma toogee fi di wax naan la mën naa digérer défaite bi du waxuma dëgg dinaa ko def nag ndax kër sulaa tey ji chaque jour da ngay jàpp yow da ngay yóbbu ay doom barki démb laa yóbbu Youssou Ndour mu daan Talfa jël bu rëy waa làmb noonu la tey suñu defee nii damay gëm yàlla mais teewul di nga am lu lu la métti mais da nga koy gérer rek quoi uh-huh. soo toogee si biir nit ñi di nga fi wax ba wax loo war ta wax mu ëpp wala dara comme li may wax démb journaliste yi rek stade bi ñoom ñëpp songanoo man leen waxuma bàyyi naa wax réaction à chaud baaxul ndax loolu mooy tax nit di wax erreur wala wax loo xam ne ne après da nga daan wax li loolu laay bañ ñu mm-hmm. jeexale ci seen face à face bi Balla ak Euh, jóge ngeen ci Eumeu Sène yéen ngi jëma yéen ngi jëmaat ci beneen combat bu mag sa diggante ak Tapha Tine mois de euh, bu mu indi nag mais neex na ndax boobu man maa ngi si ma fekk si euh, temps wu échauffement ak dernière préparation yi moo taxoon taluma leen mais dégg naa yuuxu Tapha Tine yeeg yooyu yëpp ba Balla Gaye naan ko da ngay dindi stress ak yooyu combat bu neex la nag. dindi stress la wala Tapha Tine yëg boppam ah, Tafa Tafa su yëgee boppam Balla Gaye bii ma gis yëg na boppam de. am na dara de lu mu si dolliwaat baax na de. ñu mhm. ci formé sànq. non wax dëgg yàlla gis naa ko am na dara moom lu mu si dolliwaat lu ne baax na mo boole ko contact yi wow koŋ. Mhm. mais différence de poids bi jaaxul. non non ci poids si dara poids du si dara ah poids du si dara doole mooy bëri doole résistance endurance contact ba wow koŋ moo moo gën poids. Mhm. mais ci bu ñu xoolee li nga jógee nii seen combat Sa Thiès bi ak fi ngeen jëm nii noonu noonu lañ ko nar a waajalee. dina metti torop dina metti torop torop torop ndax lu mënti xew bala Gaye daa war a relever waat défi bi maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy ndax lii am moom neexul kenn metti na mais maa ngi koy ñaanal moom le 28 yàlla sunu borom defal ko ndam si kaw tafaatin. looy wax Sa Thiès instant bi jógee ci defet mu dem defaruwaat wala mu jëlaat ko ma enchaîner pour pour pour rectifier defet bi. non Sa Thiès war a jug defaru ji daa war a dem defaru jiwaat entraîné jiwaat faju jiwaat yooyu yëpp li si nekk yëpp dafa bëri mhm. balaa mu wax waxi combat Sa Thiès na toog ba déwén Sa xale la Sa vingt 26 ans la am xaw ma 27 ans waaw côté yooyu am na temps Sa Thiès li ko dese si làmb moom sa waay bari na bari waay goo xam ne mooy loolu mhm. merci Lamine ok xaarim ñoo far macha